direction générale impôt domaine DGID moo leen di fàttali ne app yi ñeel l'impôt ngir weeru avril ni le teudé fukki fan ak juroom ci weeru avril 2021 déclaration ak payuk TVA di taxe sur la valeur ajoutée ak li nu jëlee ney l'impôt ci seen payor payoor seen luyaas wala ni i koppar yu ngeen wër ci ñenen fan ci weeru avril 2021 payuk ñaareelu ak compte provisionnel bu l'impôt ci seen société IS ak l'impôt gi ñel sen am am di hier te ngeen warloog mom atup 2020 déclaration yi l'impôt ci seen société IS ak impôt bi ci seeni am am hier di yu ngeen atum 2020 déclaration ngir contribution économique locale gi sur la valeur ajoutée akit dépôt gi jaare ci internet bu ñël état financier ci plateforme seen état fi ngeen man caa duggé ci site web bu DGID su contribuables contribuable bu wékku ci direction des grandes entreprises ak direction des moyennes entreprises service DGID takku ci lepp lu yombal senu payug waree fi lempo ngir bépp leeral wote len ci 818 00 11 00111, wala ngeen dem ci site internet bu DGID de 3 et